fal ak ñaar téeméer ak fukk naka noonu tamit li nga xamante ne bii mooy euh, ñi kànnaaru fétiche yi ñi nga xamante ne bii ñoom ñooy lor doomu aadama yi di leen tëj di def naka su dul noonu ci ñoom ba ñuy tàkkale foofu seen sago 192 kànnaar sëriñ ñi tariyaax yi kànnaar yi ñuy noté jigéen ñi jàpp nañ ci téeméeri kànnaar ak juróom benn fukk ak ñaar bëre yi nga xamante ne bii jigéen ñi dañ koy sol muy lu bon loo xamante ni lislaam déglewu ko sëñ Tuubaa déglewu ko bëre yi jàpp nañ ci lu toll ci cinq cent cinq mille cinq cent soixante quatre bëri juróomi junniy bëri ak juróomi téeméer ak juróom benn fukk ak ñeent xas na ne loolu ñaaw na tam tam ay ndënd tam-tam yi nga xamante ni bii sëñ Abdoulaye dafa tere woon dëgg ci dëkk bi te képp ku ne ci dëkk bi war koo baax sëñ bi bugg ko jàpp nañ téeméeri tam-tam téeméeri ndënd ak juróom-ñett fukk ak juróom benn 186 tëgg ndënd euh, jàpp nañ laxasi pon pon moom ku ne xam na ne sëñ bi bi muy tere daanaka moom la jiita te pon baaxut day yàqam dënd di joxe tuberculose 1501 laxasi poon jàpp nañ ko junniy laxasi poon ak juróomi téeméer ak benn jàpp nañ ko dëkk bu sell bi di Touba ci ci fii lañ ko naroon a mu xëy te baaxul. naka noonu tamit ay ay patin patin booy yor ay patin di daw di sonal nit ñi di lëjal nit ñi jàpp nañ ci far fanweer ak juróom-benn. Risla jàpp nañ ci 688 Risla juróom-benn téeméeri Risla ak juróom-benn fukk ak juróom-ñett. Euh, pon jàpp nañ ci soixante onze paquets yi pon casquette jàpp nañ ci 17 ndax cap dañuy dañuy tere jigéen bu ko sol ci Touba jàpp nañ ci fukk ak juróom-ñaar cassette jàpp nañ ci 29 cassette nag moom bu ma ko tuddee mooy cassette yi ñuy yi nga xamante ni bii lañ cay wane moom ëpp naa tudd loolu moom jàpp nañ ci. Euh, ñaar fukk ak juróom-ñeent te ñi ko doon jaay dañ ko doon jaay ay nit ci dëkk bi ñu di ko seetaan te loolu baaxul waaw. Euh, briquet jàpp nañ ci farweer ak juróom-benn ñi ko doon yor mooy ñi koy mooy taal li ñuy tox manakee jàpp nañ ci juróom-ñaar mooy loolu xam ne lislaam da koo tere nit ki nga defar jëmm mu jot jëmmi nit te yorut ak loolu lislaam da koo tere jàpp nañ ko. ay bale football jàpp nañ ci cinq mooy yi ñuy footballé noonu portable jàpp nañ ci quarante jàpp nañ ci ñaar vélo jàpp nañ ci 47 ordinateur ñu jàpp ci benn waaw ñeent fukk ak juróom-ñaar USB euh, clé USB ñu jàpp ci juróom-ñeent euh, oh lii de moom doy na waar waaw ma wax ko wala. waaw jigéen ñi jaay seen bopp jàpp nañ ci fukk ak juróom ak juróom-ñett trafic yamba mooy ñiy jaay yamba te te te jàpp leen jàpp nañ ci 97 euh, nit yoo xam ne noonu jaay yamba loolu nag danañ ci sant bu baax gendarmerie ak police ndax ñoo ci jàpp te kuñ ci jàpp la ca war danañ ko def danañ def procès procès verbal yi PV yi ba a procureur waaw juróom-ñeent fukk ak juróom-ñaari jàpp nit ñuy jaay yàmba wala ñu koy tux jàpp nañ leen. Euh, lii doon ba euh, sàngara la waaw ñaar ñaar fukki euh, juróom-ñeent fukki butéel ak juróom-ñaar. paquetu cigarette jàpp nañ ci 1112 paquetu cigarette junni ak téeméer ak fukk ak ñaar moto. ñi jàpp ñiy supporter moto moto dañuy tere ku supporter jigéen ci moto jàpp nañ ci euh, jàpp nañ ci 37 fanweer ak juróom-ñaar gën gën yi ñuy tuxe gën yi ñuy tuxe jàpp nañ ci 381 ñetti téeméer ak juróom-ñett ak benn bouteille sàngara jàpp nañ ci 36 babi jàpp nañ ci benn ndax bab yi fooy bab yooyu ñuy fooyee dañ koy tere ndax dong yi jàng alxuraan daanaka moo tax benn dong nangootu a jàng euh, jigéen ñi nga xamante ne bii euh, dañ leen a jàpp dañ doon sol naka sudut noona ñu delloo ñu liñ doon sol euh, jàpp nañ ci ñaata cent quatre-vingt-dix-neuf màggal ak léegi 179 waaw tatouage ñi nga xamante ne bii góor ñuy tesu tatouage jigéen ñi dañ koy tere jàpp nañ ci fukk ak juróom benn borom ñaari tur eh, jàpp nañ ci juróom ñaar mooy ñi ñuy wax borom ñaari tur yi góor jigéen ñooñu waaw juróom-ñeent ay kër tamit jàpp nañ ñaata kër fukki kër ak juróom-ñaar nangu nañ ko yoo xamante ni seen i borom dañ doon def naka su dul ñu jox leen avertissement ba sonn nanguñu ko bay ñu nangu kër yi joxe ko léegi kër nag sëñ bi dafa am leeral bu mu ci a leeral ñi ñu nangu seen i jàpp ne mukk kër yi dañ koy jaay wala ñu koy jox keneen kër yi ay sëriñi daara lañ koy jox dañuy xool ñi nga xamante ne bi ñooy sëriñi daara yi di jàngale alxuraan te amuñu fu ñu nekk ñu jox leen kër yooyu ñu fay jàngale alxuraan kër gu doon borom doon jaay yàmba wala muy def naka su dul noona léegi buñ ko nangoo boo fa boo fa demee sëriñ ak daara nga fay fekk muy jàng alxuraan. Euh, kilo pon jàpp nañ ci vingt kilo 20 kilos pon ñaar fukk kilo pon jàpp nañ ko. ay bongo yi nga xamante ni bii dañuy tëgg ay bongo di ci di ci yooyu ñuy tere noonu jàpp nañ ci fukk ak juróom-ñeent. Euh, rose. rose waaw xeetu ñollu la jàpp nañ ci jàpp nañ ci ñaar ay rajo yoo xamante bi dañ doon musique ay réception yooyu di ko def te sëñ bi da koy tere jàpp nañ ci 57 juróom fukk ak juróom-ñaar télévision ñu jàpp ci benn ay bool yoo xamante ne bi bool yi tëgg la yi tëgg jàpp nañ ci 20 ñaar fukki bool kon lii mooy lim bi ñu mën a tudd rek waaye lépp mënuñ ko tudd ndax waxtu wi dafa xat te mu guddi léegi dañuy wéyal liggéey bi rek sëriñ bi tamit wax ne Touba ca mat ko sëkk ñëpp nangul ko ko ñu ñaan mu yàgg fi lool di ñaan murid yi bari xéewal lool ba mën koo gunge ci yéene ji mu yéene liggéeyal sëñ Touba ci dëkk bi di la nuyu di la yóbbante sëñ Cheikh am nuyoo boo xam ne noo nuyu sëriñ bi ginnaaw loolu sëriñ bi sëriñ Mouhamadou Lo Ngabo maa ngi lay jottali cantuk dongo yi jantuk ndongo yi nag bu ma la koy jottali dafa am sabab ndax dëkk bii mu nekk nii nun ñi fi nekk yàlla baaxee nu liggéey bii nga boole nu si ca samaam tànnal la ko nun ñi nga ci nongoor boole nong ngi nga du ci nongoor boole moom la ma gën a yónnee ak cant boo xam ne dañ la koy sant di ñaan sunu ma yàggal na fi sa yokkal la saw fan ba loo yéen ci liggéeyal samaam turu borom kàttanal te ko ba ceemam ndox ca nu gunge la ci ànd kook yow dina xamal ne mbooloo mi ci boppam amuñu guddi amuñu bëccëg ndax bu ñu dee xool ni ngay doxee di la bàyyi xel ci ni ngay jëfee ak itam ni ngay bàyyee xel war may doomu aadama daañu sawar lool ci ànd yow ci liggéey bi ndax xam nañ ne bëgg nga dëkk bi sell waaye bëgg nga it ñu dellu doomu aadama yi war ma ñëwaat ci ñoom ba na lu baree bare ci gone yi li may wax ak ñoom. loolu laa leen di soññi boo ko wàllin nag da nga ma may ma taxaw fi tuuti am lu ma delloo a tuuti am ñu ma ci soññi ñoo xam ne dañoo bokk ci liggéey bi te ma bëgg ñu xam ne ni ñu war a bàyyee xel liggéey bi waruñu leen cee yi waaye nag sañ nañu leen cee fàttali moo di sëñ Mouhamadou sëñ Seydou Moukhtar dafa laa woowoon ba nga ñëw woo sëñ Mewdu Jaxate woo préfet waxal leen ne nañ leen xool chef de village yi ci dëkk bi yëpp ngir liggéey bii ma lay liggéeyloo daa bëgg ñu ànd koog yow ndax kenn ku ci ne koñ ba nga nekk kilifa gën a fa teg sa kilifteef fii leen na ci man ma bëgg ñu ànd ak yow ci liggéey bi ba su ko defee guddi ak bëccëg lépp loo xam ne bi ma ngay xew ca gox ya ñu nekk ñu di ca taxaw lañ ca a taxawee buñ ca taxawee ba ak jëpp gàllankoor ñu jot li la ko nga yónnee fan ñu def la ca koo ji xam na la loolu na nga ma wax kooka ku mu doon ma dem woo kilifaam nga ko fa teg ñu jëlee ko fa sag bañ a boolee nit ak kilifaam nag bari na lool lu ma gàllankoor ci wattu googu ngir chef de village yi li ëpp ci lii nga gis nu def ko fii ku ne ca gox ba moo nuy woo soññinu wax ne nu nangam ak nangam ma ngi fii waaye néew na lool ci li nga gis fii ab chef moo village moo yëkkati appareil woo guddi wala bëccëg ne ma nàngam li sama gox bi yéem naa ci ba tële néew na lool ca daa waroon lépp loo xam ne bii ñu ngi koy wax mu jóge ci ab gox ka ca jottali kàddu koy jot jëm si ci safari lamaan man ca chef de village ba la war a jóge ndax nit ke ne ca ñu nga daa war la ko jaaxal mu ne wax ko chef de village bi chef de village bi daa war a jéem ca ba ñu gàllankoor wala ñu gàntul ko mu wala wax la ko wala mu woo ma ma ko ma yebal fa sax ba nga wax loolu yi jotti loolu sëñ bi nag ngir ñu bañ a am jafe-jafe loolu la tax nu sañ leen a soññi nu itam ci tey lii nu bëgg nun chef de village ni li nu sëñ bi boole liggéey bi ñoom itam ginnaaw noo ngi def li nu war ci liggéey bi ne du la kat loo xam ne bi yow nii ci sayit si loolu war la looy jox ko ne lu tax ñu dafa dem kon nag loolee nga xam ne moo leen wax nga liggéeyal sëñ Tuubaa ñoom itam ñu jox leen cër ñu war a liggéey sëñ Tuubaa ca koñ ba ñoom itam nañuy jékkati seen i tànk di gëstu la xew ca koñ ba di ca dox la leen war bu leen taal nañ ñu ko waaye nag bëgg naa chef de village yi lu néew nag am na ñu koy def nag waaye néew na lool ma bëgg ginnaaw tey ñu jàppale nu te xam ne du señ Modou du mi moo leen ko digal Serigne Touba moo leen ko digal ca dawam na ngi nii toog loolu rek sëñ bi laa noon naa taxaw li ci wàllu googu jàllale ko fi ginnaaw loolu noo ngi sant gendarmerie police ci liggéey bi ñu ànd ngir Mouride Mbaye wax na ko fii léegi liggéey bi gone yi jàmbaar lañu lool waaye daa am loo leen sant ba noppi am foo leen yem yemloo santoo leen ñu faj dara da leen sant la sëñ bi bañ ñu dem bañ ko su fa demee la ca war ci tere ñu tere ko bu dee koo xam ne neex nga waxal lañ la sant daañ ko def loo gis ñu indi ko fii ak dëgër bopp ko fii indi nga gis lépp ak dëgër bopp ko waaye ku ñu diggal nga sere tere nga bàyyi te dara ñëwut fii indi nañ fi ay rajo ak yenn rajo yu ñu joxe ci daara daa ci euh, jàkka yi rajo yeeg seen ak yeneen rajo mel na ñoom ci jàkka yi lañ koy joxe rajo sax doon ko indi fii ngeen pour ngeen xam ne lépp loo xam ne jàpp nañ ko mi ngi nii boo borom teg ko bët ba xam ne ñun soxlawuñ ci li jàpp dara lu dul jëfe ndigal li rajo yee bu noppee dañ koy delloo jàkk joo mutu rajo ñu jox ko na rajo yooyu jàkko yooyu joxe rajo ba noppi kër yooyu itam murid wax na ko goo xam ne jàpp nañ ko dañ ko jox sëriñ daara ñu dafa jàngale fi mu nekk ci jàpp jox ko sëriñ daara fi mu toll boo demee fekk ñu doon fa jaay poon boo demee tey ña fa fa jàngale alxuraan di fa def lii sëñ Tuubaa gërëm dama leen ne yéen jàngalekati alxuraan yi yéen nekk ci toolu sëñ Tuubaa boo xam ne jamono bu nekkee woon jamono yéen la yéen lay bokkal tool bu muy dal kay di dal kon nag bu fekkee ne da nga ne kër yooyu dañ ko jox Euh, jàngalekati alxuraan yi delloo ko bàtt ba ca ndaala nu doole gën a doole sant dëgg dëgg sawarte gone yi nag ni ngay jëfee ci li ñu jëf ba noppi moo gën a sawarloo gone yi noo ngi ñaan suñu borom gën a yàggal sa taxawaay sa gën ko doolee dëgëral te noo ngi lay yeesal suñu cant ci noonu ci di gën a joxaat suñu bopp muy guddi muy bëccëg muy waxtu bu mu mën a doon bu jot jëg jóg jotee ne ay rek gone yi de moom jëkk nañu taxaw nañu gàntuwuñu nangu nañu nangu nañu ci sëñ Tuubaa rek tax ndax da ngaa nangul sëriñ ñi ñu nangul la asalaamaaleykum wa rahmatulah. Abdoul Latif mi nga xamante ne bii moo fi teewal xalifa général kullu murid mu yëkkati kàddu salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu sëriñ Modou lay ci turu Cheikh Mouhamadul Mountakha mi nga xam ne moom nga liggéey liggéey bu réy bii tey di jàllale nuyoo bi ci bokki taalibe yi fi daje yëpp di leen xamal ne Serigne Mountakha mi ngi nuyu ñëpp di leen jaajëfal di sant Serigne Modou mii ak ñi mu àndal liggéey bi di sant it fi daje ñëpp nga xam ne bokk bëgg mën nañoo wax ne moo fi dajale ñëpp bëgg gi mooy di fas yéene bëgg li sëriñ bëgg di bañ li sëriñ bañ c'est mm-hmm. fas yéene itam dëkk bi ñu di ko jaarale ci yoon yu tax borom sañ jox ko te mooy sellal gi ak defar gi jotaay bi nag man bi ma fi ñëwee gën na ma santaat bu baax ndax amoon naa yéene ci liggéey bi lool am ci xalaat lool waaye amaan naa ci mbett lool xaw ma noonu àgg na fii li ma njëkk a xalaat rek mooy nit ñi ko bokk ñépp dañu war di jéem a fekke jataay bi mbaa ñu ci ëpp di ko fekkee te jàpp naa ne ko fi fekkee boo fi jógee da nga am loo soññee sa bopp ndax li ngeen def kat nun ngeen ko defal mbaa noo war a bokk def ko sëñ Modou yitte ji mu ci def te daayiratu Safinatul Amaan itam rëy na lool ndax ñëpp ci bokk ba mu jógee itam ñëpp ci bokkoon waaye parce que bi sëñ Modou doxee ak yitte gii mu ci doxee ak doge gi dogo gi mu ci doxee wax yàlla fi mu xam ne ci wér te nag ñëpp la wax ñëpp ci ñëpp ko war a defee nii bu nu gëmee ne Serigne Touba lu nu am moo la ko te moo fàkk dëkk bi moom képp mu dugg ci dédd ba ak gaynde ak rabi àll toog fi di ñaan boroomam di sanc di yàkkali li fi jaar lépp jaar fi te Cheikh Abdoul Ahad jéego mu fi doxoon ak liggéey bu rëy ba mu fi liggéeyoon ànd ko bokkam ba mu fi jógee mu dénk ko njabootam gii te mooy daayira Safinatul Amaan te njabootu bi dañuy wax ne sëti Sëriñ Tuubaa yi ñoo ko bokk kon bu ko sëti Sëriñ Tuubaa yi jiite taalibe Sëriñ Tuubaa yëpp a nu xam ne ñun ñëpp war a liggéeyal Serigne Touba te ni ñu koy waxee lu ñu ko mën a liggéeyal njëkk koo liggéeyal ci dëkkam bii moo ci jiitu te dëkk bi mënuñu ko fee liggéeyal feek sell gi mu fi bëgg kaaraange gi mu fi bëgg gi mu fi bëgg amu loolu amul liggéey